Momy Kébé daal dama koy bëgg rek xaw ma ba kañ daal souvenir màggal nee gan gu am gum invité da la jox souvenir màggal màggal Touba kër soxna Mominatou Kébé ci souvenir màggal Amis daal yéen tamit du ngeen ay caaxaan ah. la maison Amis souvenir màggal soxna Mominatou Kébé Mballo oh macha allah souvenir màggal oh macha allah souvenir màggal macha allah oh souvenir màggal dal daal moom mën naa waat alxuraan moom kenn dàqul la kenn dàqul wala dal ci àddina de soxna moom Minatu Kébé yëpp souvenir màggal macha allah oh cey moom Minatu Kébé yàlla yàlla defal la jàmm 18 safar souvenir màggal amul macha allah Baye Jili Ñang Mbaalo ah. ñu ngi lay ziar sama doom Baye wallaay ndeysaan kii soxna moom ah. it ci màggal gi ci karo yi waaw eh. macha allah wa shifa min kulli daa ndeysaan li man alay itam macha allah abaa turida za wa nadim wa xalilun wa lii muxniyan li anta tabib ndeysaan bihi yuhibuni labib macha allah moom la sëñ bi di wax naan mooy faj bépp jàmbor ndeysaan naan uwa wa xabib mooy sama xarit mooy sama soppe macha hmm. allah mooy sama tabib mooy sama docteur macha allah mooy faj lépp mooy faj lépp macha allah moo tax démb ma waxoon leen ni leen bi nekkee ci waajtaayu bés bi hmm. soxna Momy de hmm. ñëpp war nañ ko ñaanal. wallaay ndax lu mu def ci bés bi xeeb na. wallaay te saa su nekk mi ngi xalaat luy bégal. ñuy ñëw ci bés bi nga xam ne sëñ Touba dafa ñaan ci sant la yàlla. macha allah te sëñ Touba alalam lii la woon. alxuraan alxuraan la woon. kon mu bokk ci yóbbalu màggal gi ren. Mm-hmm. ku fi jóge rek. Mm-hmm. am sa kaamil boo xam ni foo nekk. boo àndeeg laab mën nga àndaaleeg moom. wallaay ndeysaan leer na nañ. boo xam ni tubarkàlla. macha allah. ci sama te kaamil moom boo ko joxee jullit. Hmm. mooy li jóge suñu borom. dese la too ko dara wàccu nga ak moom. ah mu boole ci yeneen yëf. ndeysaan li ma ubbee gis. Hmm. lii oxoot la. oxoot waaw ndeysaan. te sëñ bi da leen daan jël di ko sotti ci alxuraan. alxuraan mi ndeysaan. ko mës a jox parfum rek loolu la ko daan doy. macha allah. ku dem màkk it. xam nga ni say yi ngay gën a soxla. Hmm. wóor ci lay bokk. ak lan. Zamzam Zamzam. Zamzam macha allah. waaw Zamzam. Zamzam day saafara bépp jàngoro. ndeysaan. xam nga inspiration bi li tax mu yéeme. Hmm. Euh, mooy. Hmm. sëriñ bi. dafay wax naan. xam nga ni mu yéenee jullit yëpp jàmm. te xam na ni. dafa am ci ponk diine ji yoo xam ne du ñëpp mën nañ ko def. suñu borom da ci teg sart. ak Màkka ci la bokk. asaka ci la bokk asaka boo amul alal ju ko mate doo ko génne. donte ci juróomi ponk yi la bokk. ak Màkka boo amul wér. amoo alal goo ko defee. doo ko mën a def donte ci juróomi ponk yi la bokk moo tax Sëñ Tuubaa ñaan suñu borom. ni jullit bi nga xam ni. dafa amul kàttanu den màkka wala amul alalu den màkka defal ma ci sama bis bii bu ñëwee siyaare si ma ñëw màggal si sant si la ci bés bi mm-hmm. nga jox ko yoolu màggal mu am yool bi wa xajjatan li man bi dox ci wax wa xujjatan ala muxaalifi macha allah ki am gànt amu ko mënu mm-hmm. ko bu ñëwee Touba mu am yool bi soxna si nag ñu ngi kon ku ñëw ci sama gani naa ci boole waale zam-zam waaye boole waale ci mm-hmm. gannaaw kaamil alxuraan beeg uhud bi kurus électronique boo xam ne mën nga ñàbb sa kurus ci at gi wala ci ci ci ci màggal gi. Mm. fàtte ko fenn wala mu réer. Mm. lii moom bu la neexee sa baaraam rek nga koy def. bouton bii ngay bës nii. Mm. foo toll di bës. di bës loolu def ci salaatu ak julli di nga xam. loo def si ay istighfar. di nga xam loo def ci ay takbiraat. sàbbaal suñu borom yëpp di nga xam ci lii nga xam ni sa baaraam lay nekk. du la réer foo bësee rek am loolu bi nag moom yow mi faral di tukki gis nga wallaay noir moom mm-hmm. bokk na ci ñu bare bu ñu génnee mm-hmm. dan la koy ñaan ndax cadeau yi nga waaw mm-hmm. ndox mi sax eh, doom bàyyi damaa juum aynu raxmati la ah xam nga aynu sëñ bi dafa ñaanoon sunu borom ku ci jëfandiku mu mel na jëfandikoo nga zam-zam ma juumoon ni zam-zam aynu raxmati la li muy firi mooy bëtu yërmande kon loolu mooy ndox mi eh, chocolat noir ñuy tukki xam nañ ni bokk na ci sagité yi ni ñi gën a fonk. macha mu def ci 18 safar nii macha boole ci ñaan. Hmm. texte boo xam ni day ñaan ak wax yi nga xam ni lu mu hmm. doon. képp koo xam ni ñëw nga. yàlla defal la ci xéewal. gis nga màggalu Tuubaa. kër soxna Mominatu Kebe bu. Alaaji Babacar Kébé waaye soxna Momadou Kébé moom sëñ Saliou moom sëñ Saliou loolu daal mooy euh, yi nga xam ne tënk nañ ko ci macha allah di leen sant macha allah yàlla yàlla fay yi ku koy yaatal itam wallaay wallaay gi dëgg la ndax yaatal lu baax mhm. day tax ku ko roy ëllëg yow da nga bokk ci ñi am ci yool macha allah kontaan nañ macha allah yàlla yàlla fay yàlla yàggal ko te wéral ko mu borom këram sëñ amiin yaa rabbi yaa rabbi wolof day wax naan feccum liir bu neexee day jaajëf ci mbagg yi mbagg yi jërë angat mag la woon de cey sayer si mu a def yëgu ne waaw loolu la yàlla dogal waaw taalibe Baye taalibe taalibe Mama Laaj Laaj Malick maa leen gënal neex a fekk Paris gàmm gàmm na ngeen ma na ngeen ma teg ni ma ni ma leen def na ngeen ma def ndeysaan Moussa waay. ak bëgg sëñ Tuubaa. ndeysaan rek la bëgg. ndeysaan. kër soxna Mominatou Kébé. macha allah. Fadam waay. sama comédien baa ngoog. moo tudd Cheikh. bi nice la maison amise ñu ngi nag débarrassé nii war a waajalaat nag ñogonal bi. cee amise. ñoŋono bi la ñuy waajal ni changer décor yeneen style ak la maison Amise ñu ngi nii di débarrasser waajalaat ñogonal bi incha allahu rabbi yeneen style ak yeneen vibes la maison Amise quand on est meilleur on travaille qu'avec les meilleurs. waaw góor. ah Sagnane. ñu ngi koy lijjanti de. Mbaye. ndeysaan. الحرم المكرم يومك حد سرير كسرى لأبي أبي الابتلاء من نور أفضل الورى لسان لسان أوه فرم واي دم دار بيجام لسان لسان أوه غوريالا غوريالا ما شاء الله ما شاء الله قول يا الله مبارك مكرم قسيم spécial repas màggal c'est soxna Mominatou Kébé moom Serigne Babacar Kébé di Ndiouga moom Ablaye Tagé moom Serigne Cheikh moom Serigne Saliou borom bu sana pay la la ñaa pay la waaw kii pay la la waaw kii ceebu jën la waa kii ceebu yàpp ngénte waaw ceebu yàpp ngénte ngi noonu bi ceeb jën rouge oh, cey soxna moom i natu kebe yal yàlla fay la bi lan légumes la soxna ma dem jeng sall nekk noonu macha allah yàlla barkeel macha allah tey joobaay joobaay dugg yi da kastoor la moom dugg fere yi moom laalu frigo bu feree jën yaa ngi noonu oh jën yi lan la ay li ma jàmm la bon appétit mes amis loolu mes amis des na bon appétit de valeur Soxna Kati Diouf l'appui du député maire sénateur Yaayu Niang Xarañ Lo aka from Farmarédge Music